merci Ousseynou ñu ngi lay euh, gërëm bu euh, baax ci information boobu nga ñu confirmeel fa fecc Ndar ngay liggéey ak moom euh, di rédacteur en chef u rajoom Alaaji Golbert Diagne suñu baay boobu la nga xamee ni ci euh, rajo euh, ràññee nañu ko ci euh, ci homme de culture bi mu doon ràññee nañu ko ci ci wàllu tàggat yaram itam ràññee nañu ko ci diggam ak groupe Futurs Médias dañu ko ci yàgg ràññee ndax relation bu particulière boo xamee ni am na ko ak sunu kilifa di Youssou Ndour ñu leen di wax ni ab tiis la boo xamante ni dal na ci ndoddug Sénégal en période de crise crise coronavirus bi euh, faf malheureusement euh, ñu euh, dëggal léegi nii génnuk àddinaam moom Golbert Diagne